ni suñu participation bi jëkk ci euh, liggéeyu daara kaamil di université bi loolu nag xam ne liggéey bi lu rëy la lu concerne ñëpp ndax communauté bu ne day am objectif yoo xam ne waa communauté ba ñoo koy bokk nga xam ne boo ko attee ci économie l'islam infaq koy doxal loolu nag bu fekkee gone yi nga xam ne ñoom ñoom lañ koy fàggul euh, muy ëllëg di avenir xale muy avenir Euh, concerné nañu war nañ ci wane ak euh, itte war ci wane ak yàkkamti war ci wane tamit ak gaawaay moo tax ñu li ci jot a dugg ñu gaaw indi ko tey soññ yeneen membre yëpp nga xam ne euh, bu kenn naw dara bu kenn jàpp ne dara am na lu ci dikkati rek fas nañ yéene indi ko duñ ko xa duñ ko waajal dootuñ ci waajal dara ndax liggéey la boo xam ne ngiru dund la kon amul fu mu yem lu fi ñëw danañ ko indi lu ñu indil danañ ko indi ñu ci sant bu baax nag membre yi ci mobilisation bi taxaw taxawaay bi rafet na trop ndax lu tolloog une semaine dix jours ñu taxaw ci liggéey boo xam ne taxaw rafet na lool ñu ngi ñaan mu nekk loo xam ne jullit ñi bañ daje def di wax yu saarixoon na fil xayraat mu dugg ci loola te ñu bañ a des gannaaw ñu ngi ñaan yàlla bu ñaan nañu ko fas nañ ko ci li nga xam ne moom nañu euh, jëbale tey ñaan tam euh, ñi nga xam ne ñoo xam université la muy euh, jariñ ñu di ko leeral ñëpp ndax mu mu mu mën a doon loo xam ne dina àgg fi ñu ko bëgg incha allah